mais caat lan moo la dugal ci caatu limousine avant tout. caatu limousine ni ko poli di waxee rek on waraanu a waaw. kooku ah, ma leen loo xamante ne maa ngi koy bàyyi xel si moom loolu loo wàccee loxo yi rek si kàttanum yàlla yërmandeem moom mooy original bi bu bis baa dinañ xam bu fekkee moo daan. wala man maa daan dinañ xam ku si doon original bi moom mooy borom top 5 waaw baax na. sëñ Fallou na fa na ko fa na ma fa xaar rek barki maam Seera Fall. combat bi nii ñëpp xam nañu dafa mën a bëre day teggi bëre bi teg nee ñëw samp ak yow jaaga. barki maam Seera Fall du ko def. billaay wallaay wa taalaay ko jiitu jaaxa tax da doon ilimande te loolu mooy jéem a pëtuxloo sax dugul sa sama bopp bi man damay xeex damay bëree. ñaar yëpp laa koy indil man yàlla xam na ko yàlla xam na ko du ko def man xam naa ko du ko def wante man déggalu ma la wax jiitu jaaxal taxut du doon ilimaan te man du ma dof te jegew ma luy dof te moom doful dof doful du xeex wante man dama koy xamal ñaar yi ma koy waxal ni man damay xeex si damay bëre si kàttanum yàlla te yàlla ma yàlla may ndam sa ko te damay am ndam sa kaw. samp xeex sa diggante ak moom samp xeex. kàttanum yàlla damay xeex damay bëre. pour muy dugg sa bopp bi damay xeex ak yow damay bëre du ma la ne ay damay tegee ne bëri bi de di naan déedéet ay stratégie damay xeex ak yow damay bëree voilà. kon da ngaa jàpp ne li mu wax ni dana jéem a nguus wala loolu tam ma cax si biir cax ne ko jiitu jaaxa tax da doon ilimaan loolu muy jéem paqaloo sama main nekkul si moom voilà mosoo ma ñëw seet si interview sax may waxee nii barki maam Seera Fall ma yaakaar laa mujj ku may xaarloo man xaarloo ma man damay dem. kii mooy joxe ndam tamit dama koy dem jëli si kàttanum yàlla. incha allah kon combat bi mën diggante ci xaar lu raw sa digganteeg Ibu Afi wala lu raw sa digganteeg Ama bi Malika kon waaye lu si kàttanum yàlla yërmandeem. waaye aw ma leen lu may bàyyi xel si moom. na tànc ma tànc ñu konante dóoral ma dóor dóoral ma dóor bu ñu sonn ñu dem ku nekk ardo ñu ñëwaat ñu xool bu ko neexee. barki maam Seera Fall ma yaakaar penku laa jublu. non non non caat yow français nga doo xeex. billaay wallaay wa gi ma nekkal nii ak njàpp gi ma nekkal nii bu ko neexee laa wax billaay arbitre bu nee prix ma ak moom ko sama mu téye mu jox ma loosam mu kor ma kor ma waaw yow yàlla yàlla dafay caat am Diop indi Ndiaye. billaay wallaay wa taala barki maam Seera Fall ma yaakaar kooku du ma ko waatee du caaxaan bu ko neexee laa wax billaay arbitre bu nee prix jarul sax ñiy léewtoo na ñëw ma jox ko sama ndodd mu téye ma téye nga xool mu ne ñi mu doon dugal top 5 sa bosa si gën a garaaw si kàttanum yàlla baax na yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm rek incha allah rek yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm la première mais ñu talak fekkee mais ko gudd fan ak wér dafa ko tam bépp doomu aadama incha allah rek bu ñëwee xeex bu ñëwee xeex dama koy pompé bu mu sonn ma laal ko Dubaay weeru bu ñëwee bëre mu fekk ko fii ndax dama ko laaj mu ne soo gisee mu jël dafa am ñu war a bëreel Grand Médine parcelle sa il faut mu jaar si yow faxas pare soo ko mën a ñooñu. waaw nag loolu nag loo tax nag man du ma porte nag man du ma de du ma porte tamit ba jamaa man porte fer laa bu wow koŋ bi jaar si raay bu wow koŋ bi. billaay wallaay wa taalaay du ma portom de bu bëggee portom da ngay dem uti. billaay wallaay wa taalaay. doo portom moom moo gën a xam loolu. wallaay azim. yàlla nañu yàlla gën a dolli sutura rek ba bis ba incha allah rabbi